mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw buñ jujalee ci nuyoo Cheikh Mahmadul Muntaxa alxalifatul am di tarixatil muridiya di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér di ñaanal baax Serigne Bassirou Anta Niang xalifa maam Thierno Ibrahima Fati ko ñaanal suñ boroom may ko fan bu gudd lool bu ànd ak wér ba lim naa liggéeyal waajuram ba maam Thierno Ibrahima Fati yàlla may ko fan bu gudd lool ak wér ba mu yeggale ko yëpp di siyaar bu baax a baax waa Muxaddamatul Xidma ci jiitu sëriñ bu Bousso ak sëriñ Abdou Lahad mii teew ak Abdou Lahad Thierno jóge ay kàddu yoo xam dafa jógee ci Touba Guéné ci sëriñ Mbaye Ndiaye ak mboolem taalibe yi fa nekk yëpp mu am tey ji ay addiya yoo xam da ko yónnee woon fii ci daayira bi muy Moukhaddamatoul Khidma te mu nekk loo xam tey ji kenn ku ne war nga ci def saw ñaq kenn ku ne war nga yëkkat sa addiya def ko ci ndax kenn ku ne xam ne tim liggéey bi ngeen liggéey ci réew mi ak bitim réew ñépp teg nañ seen bët léegi nag euh, moo taxoon mu yónni ñu doon yesal ak taalibeem di sàkkuti ñu ñaanal ko bu baax ba yéene ji mu am fii ci daayira bi mu dem ba def ci lu gën a kaw njortam ci lii mu joxe nii ndax xeeb na ko lool te kenn ku ne xam ne sëñ kar ñi nga xam dañuy dem ci moom te mu yaakaar ci kër gi ñu nekk xam nañ ak taalibeem ak bëgg lu baaxam euh, li ci ëpp ci daare alxuraan yi ak jumaa yi ak yu mel nii rek ci lay def boo ko bëggee nax sax ci loolu nga koy naxee ngir bëgg Serigne Touba. te fii képp koo xam tey jii def nga ci lim sa bopp nga ci defal ndax liggéey bii ñëpp teg ci seen bët kenn kon nag gis nga ni ngeen ciy doxe ak li ngeen ci ñàkk ci alal ay millions yu du jeex ngeen ci def te loolu liggéey yàlla rek moo tax ngeen koy def ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa bërki dem rek maa ngi ci taaxeerlu ci ay prison bu leen demoon doon fa def ndeysaan ay xéewal yu am solo yoo xam ni ñëpp dañ ko rafetlu te loolu dara gënu koo kawe ci euh, liggéey Sëriñ Tuubaa rawatina weeru koor kon daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal di sàkku baax ngeen ñaanal ñu xam naa liñ ci war a wax lépp dañuy jox sëñ Maxtaar Cissé mi nga xam ne moom laa àndal muy xaritu sëñ Babacar di sëriñub daara mu yeggale yéene yëpp rek lim ci war a wax mu waxal ñu ko ñu ngi leen sant daal di gën a suñu taalibe di sàkku ñaan bu baax a baax a baax a baax Cheikh Abdou Lahad loolu mooy li nga xam ne mooy yitte yi nga xam ne moom lañu ñu sëñ Babacar yónni woon mi ngi sàkku ñaan di sàkkul tim taalibe yi nekk gën a yëpp muy taalibe yi nga xam dañoo aju sëriñ bi mi ngi sàkku ñaan bëgg ngeen ñaan leen ba yéene ji ngeen am fii ci liggéey sëriñ Tuubaa ñoom ñu dem ba di ci def loo xam ne dina gën a kaw seen jort lool jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah aousu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asraf al seydina wa mawlana muhammadin al ah, ah, waa daayiratu muxadamatul xidma ñoo ngi leen di bu baax a baax a baax di leen siyaar bu baax di leen ndokkeel bu baax ci liggéey bu am solo bii nga xamante ne nii moom ngeen di liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasul ci dëkkam bu sell bii nga xam ne sëriñ bi da koo fonkon lool kon nag ah, képp koo xamante ne suñ boroom dogal na rek am nga nekk ci barab bii di liggéeyal sëriñ Touba am nga tawfeex ju yaatu ba tax na kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye xitam nag di leen siyaara rawatina ci weeru màgg wu tedd yi ñu nekk. muy weeru koor wi ñu nekk ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne nii moom ngeen defal sëriñ bi ci dëkkam bi waaye rawatina ci bu tedd bii nga xamante ne nii mooy jumaa ju mag gi rawatina ci weeru koor kon ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare sëñ Moustapha day mel ni ah, wax ji lépp wax nga ko xanaa dañ ci yokk ay kàddu rek incha allahu rabbi gannaaw bu ñëwee waa Moukhaddamatoul Khidma siyaar leen ndokkeel leen ci liggéey bu am solo bii ñu ngi leen di jotali nuyooyu sëriñ Babacar njaay ca Guinée Conakry ak mbokk yi nga xamante nii moom la bokkal nekk foofu ci Guinée Conakry ñi ànd ci liggéeyub sëriñ Touba bi mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di leen ndokkeel bu baax a baax a baax a baax a baax ci liggéey bu am solo bii ginnaaw nuyoo bi it yóbbante na ay kàddu yoo xamante ne nii bëgg ñu jottale ko jëwriñu liggéey bi xam na ne moom daal moom sëriñ Touba rek moo ko ñor te xam na ne yéen xam naa ne sax yéen tamit xam ngeen loolu ña fa ne ñam nekkal foofu tamit te ñu bokk liggéey bi sëriñ Tuubaa bi sëriñ rek moo leen ñor ba tax na moo jox ñu addiyee ji ñu indi ko ngir yàlla ak jëmi sëriñ Tuubaa addiyee ji nag moo euh, ñam bokkal nekk foofu ñoo ko ñoo ko ñoo ko bokk taxawee addiyee nag du tuut euh, pas-pas bi rek moo ci am solo ak maam ak yéene ju sell ji sëriñ bi it moom liggéeyal ko am na solo lool ndax am na mbind mu bindal boppam waq di xawaa jël si na daama fii xidmat wahab lahum maaraamu loolu rek maanaam doy na maanaam euh, ki nga xamante ne mooy liggéeyal sëriñ tubaa ah mu dalal xelam bu baax a baax a baax te xam ne képp ku liggéeyal Serigne Touba loolu tawfeex la joo xamante ne nii ah ku dajeeg moom jamono liggéeyal ko wala wala wala wala nga xamante ne nii maanaam xëy na sëriñ bi sax moom nekku fi waaye njabootam ñu ngi fi. ah maanaam sa sa liggéey tàbb ci liggéey Serigne Touba loolu day na loolu day na taw loolu doy na tawfeex kon loolu ñu ngi ciy dalal bu baax a baax moom tamit euh, maanaam xelam Serigne bay Ndiaye ak ak ak ak ña nga xamante ñoom la bokk nekk Guinée xam na Serigne bi daal moom li mu bind ci ci ci ci ci ab yaat woowu rek maanaam doy na tegtal ne booy liggéeyal Serigne bi maanaam war nga sa naa dal bu baax baax a baax a baax moom nag yéenam rëy na lool lool lool comme ni ko sëñ rek mooy dëgg ndax moom lu baax rek la bëgg sëriñ bi rek moo ko ñor ak ñooñ Serigne bi ndax Touba gii bëri na fi ay daara alxuraan yoo xamante ni maanaam mu ngi ciy dugal loxom te bëgg lu baax rek moo tax mu di ko def a ah, ndax it loolu moom mooy moom mooy mooy wërsëg ndax wërsëg bu fekkee ne suñu borom dala ko jox nga ciy def lu baax a ah, loolu loolu moom lu ñuy tuddee wërsëg moom lu ñuy tuddee tamit maanaam am-am ndax boo amee bu fekkee suñ borom dalaa jox nga mën caa def lu baax loolu too tawfeex la ndax xëy na bëri na ñoo xamante ne tey maam suñ borom dink na leen wërsëg te nuñ caa def lu baax kon loolu tuddul am am tuddul am am kon sëñ Babacar a ah, li muy def yàlla doo nga tax ma di ko def te nag alxuraan li mu wax du dañ man amila saalihan fa li nafsihi loolu tamit ab tegtal la boo xamante ni ah maam comme mi ngi def lu baax loolu moom lépp lu mu def ci lu baax rek boo xam la ko defal kon nag waa daayiratul Muxaddamatul Xidma ah ginnaaw addiyee ji nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax te xam ne yéen seen wéttal la ba leen yàlla boole ba maam ba léegi ah moom tamit sant rek la ci def xam na ni sëriñ bi rek ngeen di liggéeyal te moom tamit sëriñ bi rek moo ko ñor kon mu ngi ci seen ginnaaw saa yu nekk bu leen ko fàtte ci ñaan ngeen koy ñaanal waxtu wu nekk ndax am na yéene ji li muy def nii maanaam yéene ëpp na foofu noonu te loolu yaakaar naa yéen bu ngeen bu ngeen àndee ak moom ba léegi léegi tamit am na lu ngeen xam ci sëñ Babacar ci pëstayfam ak taxawaayam kon nag a ñaanal bu baax a baax a baax a lépp loo xam ne dëgg na na ci la waaye sëriñ Babacar moom ay kàddoom jot na sëkk kon nag gannaaw nuyoo bi ak siyaar bi lépp daal ñu ngi ñu ngi jéggal bu baax a baax li ñaan suñu borom boole ñu defal tawfeex ñun ñëpp rek ci darajay màggaay Sëriñ Tuubaa barke alxuraanul karim wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baaraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Mouhamadul Moustapha ñu ngi lay nuyu delloo nuyoo di nuyu Sëriñ Moxtaar mi nga àndal di leen ziyaara ci weer wu tedd wi ñu nekk waaye di leen yóbbante nuyoo itam ci kilifa gu tedd gi ngeen bàyyi ko ñu nuyu sëriñ Mouhamadul Habib di ko siyaara ci weer wu tedd bi ginnaaw loolu nag ñu nuyu sëriñ Babacar Ndiaye ca Guinée Conakry mi nga xam ne moo fa toogal daayiratu Muqaddamatul Xidma waaye ci si kàddu yi ngeen wax léegi rek doy na ci ñuy xam mooy kan ndax euh, seere si rek mooy Cheikh Moussa mi nekk buntam ci sëriñ Touba ndax doomi sëriñ Mawla bi mi buntam ci sëriñ Touba moom la teg liggéey bi ci loxoom ngir mu andi ko. loolu mooy wane ne kon kooku li muy def Pastef rek moo tax mu di ko def bëgg Serigne Touba rek moo tax mu di ko def liggéeyal Serigne Touba rek moo tax mu di ko def waaye mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la nekkal foofee itam di Serigne Abdou nga xam ne mooy euh, représentant xalif général des Mourides di président daayira Guinée Conakry ak Serigne Thialiou Thiam rakam ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fa nekk yëpp te di ko jàppalanteeg moom ci liggéey bi nga xam ne xëy na moom it doy na leen ni mu ñu doyee ba ñu jël cërub liggéey bi teg ko ci loxoom ñoom ñu ngi leen di nuyu bu baax ci leen siyaara bu baax di leen ndokkeel ci weeru kaddu wi te di leen xamal ne liggéey bi nga xam ne moom lañ doon teg ci loxol Serigne Babacar Ndiaye ngir mu war a jëm ci daayirat Muxaddamatul Xidma ci ndogu yi nga xam ne moom la ñuy def ci koor gi liggéey ba agsi na Serigne Saliou yoon Serigne Babacar yónnee na ko teg ko ci loxol Cheikh Moussa mi ak Serigne Mokhtar mi ñu indi ko wuutu leen fi yéen waa gine Guinée Conakry yëpp ñoo ngi leen ciy sant nag bu baax di leen ci gërëm bu baax ci turu ma Muxaddamatul Xidma yëpp waaye di fàttali ko it ne lu daal dara ci ginnaaw rek eh, suñuy ndaw ñëwoon nañ foofee di sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Thierno ak sëriñ Abdul bu Bousso mii ngir ay liggéey yu ñu doon amal foofe waaye taxawaay yu am solo la ñu amoon ci ñoom taxawaay yu am solo son sonn ci ñoom lool dalal leen toppatoo leen ànd ak ñoom dem ci barab yi nga xam ne ñoom lañ soxla woon a dem yëpp ba lépp mat loolo waxtu wi nekk ñu ngi koy fàttaliku seen taxawaayu yu rafet yooyu ñu amoon ci moom sëñ Babacar nag kon ci kàddu googu ñi ngi lay jottali suñuy cant bu baax waaye di teg ci yow ci sa loxo cant yi nga jottalil ñu ko sëriñ Abdou caam ak sëriñ Saliou caam ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Guinée Conakry yëpp yow nag li ma a wax ci yow sunu bokk yii nga xam ne ñoom lañ toogal wax nañ ko duñ ci dellusiwaat dañ koy nangu rek te di ko dëggal te di ko seere kon nag taalibe bu nekk la war a nekk yitteem mooy fexe ba. kilifaam xam ko ci jëf ju baax ba bu ëllëg bu taxawee man koo seere ca melo woowee kon bu la sa kilifa taxawee seereel la fii lii te loola do loola rekk di li xam ci yaw nga xam ne ñëpp xam nañ ne doonut luñ lay waxal ngir maslaa waaye dafa nekk lu nekk ci yow war nga sant yàlla bu baax te gën a góorgóorlu bu baax kon nag ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne bi dara tawu ko bu boole ñu dimbali te boole ñu suturaal boole dolli xéewal yi ba taxawaay bi ñu gën ko kon nag ñu ngi leen di séntuwaat <laughs> da ngeen déwén incha allahu kenn bañ a manqué kenn ñëpp ànd ak wér ñëpp dolliku ñu teewaat fi ni ngeen déwén andiwaat ko te àndaat liggéey bi ci barke Cheikhul te liggéey bi ren bii suñu borom nangul na ko nangul ñu yeneen yi ñëw yëpp ci barke Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد